pour ndimbal. waaw waaw d' accord. léegi dañ leen yóbboo ci prison bi après foofu noonu dañ leen doon dóor foofu. foofu la ñu dóoree yëpp. Marocain ñoo leen dóor quoi parce que yéen li ngeen doon dem li ngeen doon dem moo tax ñu ñu ñu leen. mais foofu noonu noonu amul ay yeneen sénégalais yoo xam ne ñoo fa wala. am na yeneen sénégalais this